ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen si suivre ci chaîne bi di Ligzo TV mais gars ñu déglu révélation yi nga xamante ne bi Bara Zéro Stress def na ko ci match Sénégal bii ñu jëm ndax parce que boo xoolee gars yi ñi ngi préparé loo xamante ne bi soo moytuwul buñ ko defee boo moytuwul problème dina am de mais gars ñu déglu baara révélation yi mu def bu baax a baax a baax yéen ñëpp seetaan ngeen coupe d'Afrique bi ñoo demoon final bi ñu demee final tase nañoo beneen parti boo xam ne indi nañ ay butéel ay njambaan bind des tour et cetera genre te yàlla terewul ñun la faral kon xam ngeen ne yàlla farut ak kuy xërëm yàlla farul ak kuy tooñ jeunesse bi nag li ma leen gis ngeen di préparé di ko yóbbu des lagères des laspers euh, des cokkeer yu kenn xamul cela veut dire yéen armé ngeen di pare pour dugal ko ci stade bi loolu moom defe naa liggéeyu policier yi xanaa danañ leen palper ba duñ leen seetaan ngeen dugal armée ci biir euh, kii bi pour fas yéene jàkkaarloog naar yi yàlla farul ak kuy tooñ ànd leen yàlla motivation ambiance jeunesse su li ñu leen xamee mooy yaru dal gëm yàlla dem jëli ndam ni ñëwaat toog am na loo xam ne man pour man c'est de la foutaise côté côté point boobu moom du ma ci d'accord ak yéen bu loolu jàllee dama dégg ñu ne tamit billets yi dafa am ñu dem jënd ko en gros ñëw di ko jaayaat jeunesse bi lu seer leeru ma nag mais bu dee dëgg la yaakaar naa ne footu footu ñi ne état bi la wala ñu yor wàllu organisation bi parce que bu doon fii Europe soo demee di jënd billet dañaa la amoo droit jënd lu weesu ñett kon ñoom bu ñu leen jaayee en gros ñoom seen faute la